Eh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor jigéen mag ak ndaw eh, di nuyu kilifa yëpp yi fi teew di nuyu journaliste yi ñëw ñu ngi di nuyu bu baax di leen sant eh, bu ngeen gisee tey lii lu ko waral mooy li nga xamante ni bi commerçant yi jafe-jafe yi ñu nekke ñu jànkontoog ak jànkontoog ak lu metti ci marché yi ci foire yi fi daan am bañ am consensus bi ñu trouvé woon à 2015

léegi yàlla dogal loolu bi mu amee Covid bi ñëw ñu arrêté ko ñun dañu toogoon ñu yaakaaroon ni suñu yaakaar li xaw li waroon a xew mooy ñu relaxé loolu xam fan la wante ni mu jëg bët gëtëm léegi loolu amuñu ko dañu toog rek benn jour ñu dégg ni foire am na ñu dégg ci Touré ina quoi man de ñi ko jëkkoon a miin ci laa bokk ma ne woon bu amul te ginnaaw bi mais gisee aussi euh, arrêté kii autorisation bi ci laa ko gëm ñoo leen di xamal ne aussi foire bi parce que les commerçants nous nekk ci marché 11 mois nous sommes ci 12 mois noor nawet la recette les la ci de Marseille, de Marseille. ko jël ci marché ci euh, commerçant yi lañ koy yóbbu li commerçant yi war a am bàyyi leen encore ñu continuer waat di souffrir loolu vraiment kenn ku ne na nga xool ci sa bopp. kenn ku ne. lan moo tax foire bi am Sofraco moom depuis ko ba léegi mu ngi bi mu amee Sofraco foo foo foire bi am Sofraco waaw après maa ngi ñëw ci point boobu. nga bañ nga bañ a dagg fi ma doon jëm. kenn ku ne ñu xool ci sa bopp kenn ku ne am nga sañ boo xoolee lu lay lor ba ca commencé ci ministère ba. ba député ba ba président képp ku ne am na sañ-sañ boo gisee lu lay nga jël sa ngay jël sa nga jël say mata xam nga nga défendre sa intérêt te commerçant yi aussi vraiment sonn nañu Covid bi bi mu ñëwee 2 heures tëj nañu 14 heures tëj nañu 18 euh, heures tëj nañu te teewul kenn teggul ci benn taxi amul benn taxi boo xamante ni teggeeguñu kaw commerçant yi ñu koy fay. kon donc lii bu amee waroon nañu mën a bàyyi ba commerçant yi vraiment sax man dama waxul ni sax ren ji sax dama xalaatoon ni kenn warut a xalaat sax di tëgg foire ak 2021 bi loolu la ñu amoon loo xamante ni vraiment nakare nañu biñ ko yëgee aussi kilifa yi ñu war a waxal waxtaan nañoo ko cuuf woo naa leen téléphone xam leen ni lii bu mu jëm kaw na ngeen ko teg ci suuf ñu toog ba parce que biñ koy yokk kenn yëgul man yëguma kenn yëgul kuréelu commerçant la wan loolu loolu parce que buñ ci buñ ci ñëwoon appuyé ci dem ci ñun ñun yëpp ànd parce que avant lii di am am na ñu ñoo xam ne dégg naa ko ci groupe marché bi eh, Thierno da leen di la xayam layam layam xam na ci dara te man yëgu ma tiinu ma. dégg nga dégg naa ko ci groupe marché bi yëgu ma tiinu ma moo tax tey ñu jël position mi nga xamante ni président ñu ngi koy ñaan ak képp ku mu àndal lii na ko teg ci suuf. a ñun ñoo ko moom seulement benn Unacois rek la. foire bi nekk ca Aliou Sow Aliou Sow bi ma koy yëg parce que délégué ya fa ne ñoo ko waroon a signalé signalé wu ñu ko ba foire ba démarré ba correctif bi des ñaari fan ma soog koo yëg bi ma ko yëgee it a na préfet Moussa Diagne ma def kalek moom pour ñu dem fa automatiquement xale yi ñu mag kenn ko foire bi dina jàmp na te amuñu jot ci euh, nu mu tudd événement yi. Eh, dal na suñu kaw nañu bàyyi ba julli bi passé lii moo ko waral barki Demba Ndiaye woo naa Aliou Sow dinaa kaleeg moom réunion incha allah ci foire ba fa am li jëm ci suñu kanam lii nag problème bi euh, kees xeex bi nekk bu ñu wax ni foire rek problème yu kees yi bari na du foire rek loolu nañ ko bàyyi kel bu baax ñun commerçant yi parce que commerçant yi jot nañu jox leen seen i gëdd ñu jox ñu jox seen du foire bi rek ah xaar bi rek moo tax ñuy jóg di xeex li jëlee suñu ngi suñu kanam incha allah par étap étape lañ koy jëlee lépp loo xam ne war nañ yow yaa jiite ina régional bi yéen lañ falandoo woon lu tax ngeen ne bàyyi daam léegi euh, reconnaître leen ñun ñëpp suñu mandat jeex na ah, ñun ñëpp benn ma ci mban mii suñu mandat jeex na lu tax yeesalu leen ba léegi covid bee taxoon jotoon nañu joxoon nañu comité directeur la lan le 19 bi passé ñu mat ko mais joxoon ñun ñëpp suñu mandat yi dafa jeex li ñu doon ñu relever xool nan la ñu war a teg ci ba mais nag nit ki fa mandat de bar ba ngay signé at leneen ba ci toog aussi ma xam ni euh, ñu xam ni euh, mbir ñu song nii waxuñu xeexu foire rek yemul ci xeexu foire parce que caisse anarchie totale moo fi ne te autorité yi fii ne bëgg nañ ñu jàppale commerçant bi bu baax a baax a baax a baax so rawatina aussi. 25 moom foire du am permanent. non loolu loolu tax ñu jël position bi loolu moo tax ñu jël position bi nga xamanteni bi foire bi nañ ko annuler dem nañ ci eh, fiñ ci wara jaar yépp jaar nañ fa devant le préfet devant le gouverneur yépp bind nañ jaar nañ ba plecleur bind nañ ko eh, wax nañ ko lañ koy war a wax léegi daal eh, mbir mi aussi yemu ci mbir mi aussi yemul ci problème foire rek parce que marché yi boo xoolee ni ñu ben lii yaakaar naa marché ku ci dugg anarchie totale moo fi ne anarchie totale moo fi ne ci marché yi marché aussi mënuñu continuer di fay seen droit benn droit bu lo xamné xam nañ lako dañuy tej sa cantine. Bacar loy tontu ñu ne élection yé jégué rek commerçant yi dafa bari ay politiciens si biir. loolu la ñuy man duma man de duma politicien. duñu ay politiciens. man duma man tiernu man sama man sama lox sama bopp la xam man duma politiciens képp ku yaakaar ne boo ñëwee ci man ma politique la bul ñëw. man radio lay wax ak télé ak lépp man duma politiciens parce que politiciens mom man duma mom moom. parce que lañ lay wax ak lañuy def dara du. kon tey jii bu fekkente ni dañu dem ba ñu def bi ñuy soog a di wax ay waxu di soog a réagir dañoo naar féq dëgg du romb ay nopp ñun nag li ñoom duñu nangu kenn di ko yàqal ndax bu ñu ci dee dañoo jihaat na leer naññ Sénégal amul lu dul commerce kenn ku taxaw fii ku état fekk fa nga ne jox la amul fii ku ci nekk yow yaay jóge ci kaw gi wala foo mën a nekk ñëw dem di commencé pousse pousse ak yenu ba yàlla may la fukki junni wala cent mille nga commencé sa benn magasin bu loolu nag du ñu dem ba tey ñu nangu ku ñu ko bi ñuy wax nit fël la na nag mairie nit ñuy wax du ñu dara danañ wax moom danañ ko wax moom la waaye ñoo nekkul dara lépp lu ko jaral pour moom danañu jaral lu ko raw baax beneen def xeex bi lii plan A des na leneen du ñu wax rek jam ci ah. parce que du ñu may benn base buy sampe biir biir biir. zéro foire la ñu wax. zéro foire la ñu wax. tey bureau national. am na lu leen état bi jagleel bi commune bi ñëwee. parce que nag ñun yamuñu Thiès rek au niveau national la ñu wax. am lu mu leen jox. am lu mu jox président national bi mu mën cee def ay affaire am. lan lañ jox bureau bii di régional bu Thiès barki démb dégg ngeen ko wax déclaration ko wax déglu ngeen ko Serigne Mboup dafa naroon samp fort ba gars yi déclaration reculer pourquoi ñu ne fii nii duñu reculer dañuy reculer la force amul neexal kenn du leen ko sax ñaan ñaanuñu kenn un centime dañuy dem ak lu ñu may ñu jël lu mu jaral lu ñu jaral jaral nañu ko am nañ six mois boo xam ne dañuy wax bureau du ñu fay

mais ndax loolu yanu na maanaam. ñaata fan président Macky Sall ci àll bi def tournée économie ñu taxaw Thiès ñu ni am na ñoom bëgg nañoo yàqal commerçant yi li ñu waroon di root akus néew. ñu jógee ci at mu métti jëm ci nan la ñuy def pour fay banque yi li ñu ameel ay bor. Hmm. nan la ñuy def pour fay suñu location. nan la ñuy def pour dundal suñu njaboot. nga ñëw ñetti nit bu ko fuqari. ci laata.

Babacar maa ngi lay tuubal bu baax ak doyen gars yi fi ne yëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum